turu Cheikh Mouhamadul Moustapha mi nga xam ni mooy jëwriñi Cheikh Mawlid Lamine e, kàddu yi daanaka damay ubbi rekk wax ñi mu àndal e, su ko defee sëriñ Modou Baram sëriñ Abdou Khadim ak sëriñ Khadim yëkkati kàddu yi mu ñëw nag ànd ak bokk yépp ànd naag bokki yim bokkal Cheikhul Khadim yépp ndax kër gu nekk am na délégation bu fa bàyyi ko ñëw fii ni ko El Hadj Abdoulaye Mbaye Pekh waxee léegi waaye suñu sëriñ Baye Ahmadou Makhtar moom mi nga xam ni moo moom bis bi ndax lépp lu ñu def ci kër Cheikh Mawlane Bara war kër Cheikh Modou Moustapha moom moo ko moom moo koy jiite moom sax moo naroon a ñëwal boppam bërki démb woote na bëgg a ñëw waaye sëriñ Moustapha ooyo <clears throat> falal ko ko ni ko ñun fu ñu nekk nekkal la ko waaye su ñu nekk délégation doy na moo tax mu jël sëriñ Ousmane mu Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma ànd ak sëriñ Basiiru mu sëriñ Saaliwu ak ñi nga xam ne ñëpp daaru ko du bàyyi ko di ay cheikh mu boole leen ak daayiratul wilaaya bu sëriñ Mbàkke Soxna Lo bu sëriñ Cheikh Mbàkke Gaynde Fatma ñu ànd liggéey bi et fekk nañ fii itam ñoo xam ni waa kër Cheikh Mamadou Fadal lañu ndax suñu baay bu sell ba nga xam ni doomi Cheikh Mouhamadul Amin Bara la muy alaaji Mouhamadul Bara Fadilu démb rek nekkoon bisam sëriñ Galas Kaltoum ñëw na ànd ak waa kër Fàll yu bari Cheikh Mawru Muntaxa itam nga xam ne lépp moo ko moom ndax tey lu sëriñ Touba bàyyi moo ko yilif ku sëriñ Touba bàyyi it moo ko yilif yabal na fi sëriñ Cheikh Awa Balla mu sëriñ mustapha Bachirou noonu le sëriñ mustapha ànd ak mboolem jëwriñ yi nga xam ne ay cheikh lañu ci biir kër Cheikh Moulay Bara ak daayira yépp ànd ak ñi nga xam ne ay doom lañu woon di ay taalibe ci kër Cheikh Moulay Bara te su ma ji tuddee sëñ Malick Niang mi met Mbay Dieng ak Pape Fall Oyin boutique ak ñi mel ni ñoom ñëpp ñi nga ànd ak Serigne Moustapha ñëw fii kon kàddu yi di kàddu yu nuyoo ak cant ak ngërëm eh, ndax Serigne Moustapha dafa wax ni keroog bi Cheikh Mouhamadul Muntaxa yónnee la yow alaaji Mbàkke yu fay nga ñëw ànd ak le maire de Touba Abdoul Ahad Ka ñëw fekk këram ay weeri une mate du matin mu wooñu man ak sëñ baaral laxat ak sëñ Cheikh Ndiaye mi ak rakam yi sëñ Xaadi ñoom ak sëñ Modou Assa sëñ Modou sëñ Abdou Samad lim la waxoon daf ni woon boo demee nekk yónnante bi mu yónnante rek lañuy jëkk a jéggulu ndax Cheikh Sidy Mokhtar moom daa dugg ci biir Serigne Touba mu wax la ni la Cheikh Saliou Mbacké moom mi nga xam ni moom lañu ñu mujj gis ci doomi Serigne Touba yi muy xalifab Cheikhul Khadim nga xam ni ëllëg ku fi man di ñëw nekk xalif général des Mourides benn doom ngay doon ci Cheikh Saliou Mbacké wala ngay ëpp sëtam kon lu ñu ko tuddee mën naa yóbbaale ñëpp sama waajur bu baax wa Cheikh Mawlil Bara Fadilu moom mi nga xam ni moo jëkk a nekk xalif ci sëti Cheikhul Khadim yi moom kenn ku ne xam na ni léppam Cheikh Mawlil Bara ibnu Khadim Rasul moom itam suñu ko yemale woon ci moom doon na day sëkk waaye Masaalikul Jinaan bi nga xam ni Cheikh Sidi Mokhtar dafa am ndimbalu yàlla daanama faral di wax ni Cheikh na ma wooteel ci bis bi nga xam ni mooy bisu sëñ Bara ci Mbàkke Kajoor ñu ñëw santale ma ci yàlla sama borom ndax sama waajur Cheikh Mouhamadul Amin dafa ma defal loo xam ne defalu ko kenn ba ma mën a liggéeyal sëriñ bi liggéeyub sëriñ bi nag mooy liggéeyub lislaam cheikhul xadim léppam sunna la lu bokkul ci sunna bokkul ci sëriñ Touba kon suñ ne yoonu murit mooy lislaam ndax ku tedd ki mus ta wote tariixa musu ko wax fenn waaye sunna seydina muhammadin ali isalaatu wasalaam bi nga xam ni moom la ku tedd ki seydina muhammadoon kii sëriñ Touba moom la doon yeesala kon Cheikh Sidi Mokhtar sant yàlla ci bi ko Serigne Touba tànnee ci njabootu Cheikh Mouhamadou Lamine Bara ba mu mën a liggéeyal lislaam liggéey bu màgg bi nga xam ne ku fi jaar tekki sa bët sa xel dem ci moom loolu rek doy na ko sëñ Moustapha nag ni nit du liggéey ba noppi di wax li mu liggéey ak nii liggéey nit liggéey ba noppi di sant boppam kon sëriñ Moustapha mi ngi nuyoo di siyaar di gërëm di teg yooyu yépp ci loxol sëriñ Bassirou Mbacké mu Cheikh Abdoul Khadir nga xam ni kenn ku nekk xam na fi ko Cheikh Sidi Makhtar tegoon yaay sama bët yaay sama loxo yaay sama tànk yaay sama làmmiñ kon bu teewee ci jataay bi ñun mënoon nañoo bañ a yëkkati kàddu ndax bokkoon na ci moom la sëriñ bi tefaroon sëñ Muntaxa lépp lu muy liggéey muy Touba muy Ndakaaru benn ci loxoom la daan jaar kon lu ñu fi war a seere ci liggéey bu Cheikh Sidi Maxtar def ci bu Massalikul naan wala Touba te lépp jaar ci loxoom woo mën na ko war na ko mën a seere kon sëriñ Basiiru sëriñ Moustapha nga jël nuyoo yi ak siyaar yi ak cant yi di ko teg ci sa loxo mu jaar ci alay mbakk yu fay ak ñi nga xam ni ñëpp ñoom la ñu fekk te ñu seq liggéey bi di yóbbante ay di nuyu itam délégation officielle bi nga xam ni moo fi représenté le président Macky Sall te ministre de l'intérieur Aliou Ngouille Ndiaye jiite ko ak ministre d'État Mbaye Ndiaye ministre Mbongom, ministre Arona Koumba Ndoffène Diouf ministre euh, sama jàmm bi bokk ci ñun waaye Serigne Cheikh Abdoul Ahad mu Serigne Cheikh Gaynde Fatma ak Ismaïla jum ak préfet yaakaar naa ak ñi ci nekk ñëpp Serigne baa ngi rafetlu seen teewaay di sant bu baax di gërëm sëriñ Basirou sëriñ Moustapha dafa wax ni Cheikh Mouhamadul Mountakha tey mooy sëriñ Touba ku Serigne Touba bàyyi moo la yilif lu mu bàyyi itam moo ko yilif mu nekkoon tawféex ci Cheikh Sidi Mokhtar ndax kuy waajuram moom Cheikh moom la Muntaxa kuy magam làq na sa ngërëm waaye rawatina xalifay Cheikhul Xadim yi fa mu war a fa mu ko war a féete fépp mu féete ko fa ba liggéey bi sottee ci loxoom loolu nag yéeneem ak pas-pasam ak ni mu mel ci Serigne Touba moom la ko Serigne Touba faye ndax Serigne Touba fi mu àgg ci moom ak ni mel ci xolom moo waral bindeef yi mel nii ci Cheikh mu taxa kon ay jëfam ak yéeneem ak li mu sëriñ bi rek moom la ko taalibe yi fay li ma wax nag ñoon séeréer lañu man Cheikh coro séeréer la ci xilaaf ak Cheikh Sidi Makhtar seere laa ci Cheikh Sidil Mokhtar ndax 93 sëriñ Moustapha ngi ni toog moom la sëriñ bi yónni ci sama waajur ni ko dama bëgg ku ma yoral kër Cheikh moom layin baara sama waajur teg ma ko ci loxoom mu yóbbu ma ci sëriñ bi kon seere laa ci lépp waaye day jëmm joo xam ne dafa am man lu ma jàngal dafa am lu ñu xam ci moom dafa am lu mu bëggoon dafa am lu mu bañoon bokkoon na ci lii mu bañoon di nettali ay jëfam ndax am na bis boo xam ni dama toog ay nit toog ma bëgg leen woon njàmbaar gi sëriñ bi def ndax dama daan wax ni yéen taalibe yi di indi seen alal ji sëriñ bi ku fi ñëw bu déwénee di nga teg sa bët fi la ko sëriñ bi defal ba at mi ñëwee ba mu sumb Masaalikul Jinaan bi ñaari jëf rek laa ci wax yow Alaaji Mbàkke yu fay benn bisu àllarba fekk màggalu Cheikh Abdoul Ahad mi ngi jub si Cheikh Ndiaye mi woo ma ni ma kaay wuyu sëriñ bi boobu mi ngi kër ngaan na ma génn Touba fi ñu def hôpital boobu fi naa taseeg Cheikh Ndiaye ma àgg ci sëriñ bi mu ni ma am na lu ñu fi doon junjante mooy jumaa yi Masaalikul Jinaan tàmbale ci Cheikh Abdoul Ahad ndax ñaari guy mo nekkoon ci wetu ñaari tali ci rond-point bi guy gi ñu wax guy Senghor ak guy Morit lutax tax guy Senghor policiers yi alkaati yi seen macro yi ñu daan takk guy gi ci nekkon dafa nuru wona a guy googu moo tax ñu ko daan tudde guy Senghor mais mo guy Morit ñoo jàkkaarloo lu tax guy Morit Cheikh abdou Ahad moko ñaan ñaanal président bi fi nekkon Abdou Diouf la wala président Senghor ñu fay julé korité ak tabaski bi lolu amé Cheikh abdou Ahad bàyyi koo fi sëriñ Saliou Mbacke ñëw ba ñu tàmbali foofu ab liggéey sëriñ Bassirou mii dox ci lu bari ca foofa ngir xataay ba mënuñoo ñàkk sargal l'architecte Maysa Touré joojo Maysa joojo Touré xam naa ci lu bari ku liggéey liggéey bu mel nii waree su la fàtte war nañ la sargal muy dem Maroc di ñëw ci négalu sëñ Saliou ba sëriñ Saliou bi walide plan bi bàyyi koo fi sëñ Alaaji Mouhamed Lamine Bara ñëw bi mu ñëwee ànd ak taalibe yi indi xaalis bari pose première pierre bi Cheikh Cheikh Sidi Makhtar ñëw bis boobu bi ma ñëwee dafa ma ni lañu doon waxtaane woo naa mbàkk yu fay jox naa ko milliard bu manqué tuuti ngir ñu tàmbali liggéey ba nee naa ko nag du ngeen ma dab du ngeen ma dab yaakaar naa dabu leen ko ba keroog fukki fan ak juróom laataa muy génn àddina daf la woo ba nga ñëw mu ne sëriñ mbàkk yu am lii moo fi nekk waaye dakool sa sago ndax duma ko fekkee ñaar yooyu rek laay wax ci jëfi Seex Sidi Maxtaar ndax bëggul ku tudd ay jëfam yéen ñi mu doon liggéeyloo sëñ Seex Bas mi nekkoon loxoom nekkoon tànkam nekkoon ay bëtam nekkoon làmmiñam su sere amee moo war a sere nit du sere boppam nit dañu bokk sëriñ bi yow sëriñ Mbàkke yu fay yow yàlla dimbali la ndax liggéey bu toll nii ku ñu ko teg sa loxo la nga wax Seex Sidi Maxtaar ni ko du la wor waruloo ko légeel nga lislaam bépp nag légeel nga ñëpp kon ñu sant la bu baax ci loolu gërëm ñëpp gërëm taalibe yi nuyu la comité scientifique bi nga xam ni moo yore walla waxtaan wi te lépp tege ci xam-xam kon ginnaaw sëriñ Modou Bara ak sëriñ xam ne ñu war jël kàddu dama ko bëgg a ñeenti bay rek yu ma def ci Cheikh Sidi kon monsieur le ministre soo demee nga santal président Macky Sall sëriñ bi ndax durant mu nekk xalif général des gis na ni mu ko téye woon gis na ni mu ko jàppe woon gis na ni ko daan assisté ci liggéey Serigne Touba yi nga xam ne état moo ko man lii taalibe Serigne Touba yi la ku ne def nga ci sam ñaxam Mansour Diouf ma nga ne toog da daan toog at mu nekk moog lébi yi nekk biir Ndakaaru yëpp dajale seeni addiya jaar ci sëñ sëñ Cheikh Bass ñëw fi Serigne Mbacké Faye indi addiya ñu seere ko ñaari at kon liggéey bi l'islam bépp ci dugal seen loxo waaye ñu xam ni néegu yàlla suñu borom la keneen moom ko julli bu nekk am nga ci àq àq ji mooy julli juróom yi ñu ci war a julli kenn mu la cee tere julli inal masajida lillahi fala tad'u ma'a allahi ahada kon ñu santal Seex Sidi Maxtaar yàlla ci liggéey bi sant sant yàlla ñun ci Seex Sidi Maxtaar sant taalibe yi sëñ tuwaay gis nañ seen jàpp seen jàpp seen xërte seen dalaf dalaf ba bëccëg ba Seex Sidi Maxtaar am ndam tey kon lépp ñoom la kon maa ngi sant tey gërëm bëgg rek ñu may ma ñeenti bayt yoo xam ne dama ko ci arab jëm ci Seex Sidi تجيكو شيخ محمد المنتهى ما وخني شيخ سيدي مختار في الجنان مكرما فنم مستريحا بالنبي ومنعما شيخ سيدي مختار في الجنان مكرما فنم مستريحا بالنبي ومنعما بذلت جهودا في الطرائق كلها واحسنت حقا للخلائق مكرما قد اختارك الله الكريم مجددا لجدكم البهلول من أمره السما وهذا مسالك الجنان يقول لي سنائي إلى شيخ سيد مختار الخدنما وهذا مسالك الجنان يقول لي ثنائي إلى شيخ سيدي مختار لقد نما إلى المنتخب إلى المنتقى شيخي ومن هو كاسمه كساك سناء ما الخلا متكلما إلى المنتقى إلى المنتقى شيخي ومن هو كاسمه كساك سناء ما الخلا متكلما وعليكم السلام آه